xibaar bi ñu am jëm ci coronavirus bi liñ si mën a jàpp rek moo di aljuma ñaar fukki fan ak ñett ci weeru février 2020 cellule d'alerte ministère de la santé et de l'action sociale jot na benn information bu jugee ci benn structure médicale privée ne am na benn patient bu fi ñëw am température bu toll ci 39 degré put bi di metti ak bopp bi te loolu joxe na njortu ne am na feebar bi ñu naan coronavirus parce que loolu mooy signe ci boobu noonu la ñu jël patient bi yóbbu ko fu ñuy wax service des maladies infectieuses pour defal ko prélèvement pour mën ko faa téye ba résultat yi génn nationalité patient boobu française la mais mi ngi nekk Sénégal depuis ñaari at ak ay ñaari doomam ak soxnaam dafa demoon France fu ñuy wax nim ci benn station de ski nek nafa fa ci période 13 ba 25 février dellu ci Sénégal le 26 février Institut Pasteur bi mu xolé gis na ni résultat yi dafa positif manam am ko wax coronavirus ñuy wax askanu Sénégal bu ken paniqué